الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على صلاة القائمة محمد الوسيلة والوسيلة محمد الوسيلة
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey noo ngi ci sunu xutba bu mag buñ doon faram-fànce tey muy ñetteelu xutba bi mooy sunu xol yi fan la toll ci xutba juma tey tomb bi ñuy jël mooy taassuru sahaaba bi xutbatin wahid sahabatul kiram ñooñu waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci keppaaram mu leen doon jàngal di leen yar ñooñu mbokk yi naka la xutba juma doon jeexitali ci ñoom waxuma sax ay xutba mais benn xutba rek bu yonent xutba da ngay gis mu jeexital ci ñoom ya ummata muhammad ilaykum hadhihi taamulat wanzuru fi hadhihi sahafat min arrail alawal min alsalaf alsalih min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa atbaihim وحالهم في استجابة الت- للتذكير وتأثر بالموعظة mbokk yi ci yàlla nanu ànd ñun ñëpp xerewlu taxaw seetlu def ay jàngat ñu ñëpp ñu xool bu jaree ubbi ji ay téere ñu ubbi ji ay téere ci ñu jàngaat dundu gaa yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu nga xam ne ñoo ko waroon ñoo ko topp ñooñu lan moo doon seeni mbir ci bu ñu déggee yonent bi di leen waar di leen jàngal naka la waaraata daan jeexitali ci ñoom taammalu ibadallah ma rawahu albuxaari wa muslim عن ابن عمر رضي الله عنه أنهما كان الرجل على أهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñun ñëpp nañu ànd xool hadis bi nga xam ne mu ngi ci Buxaari ak Muslim ibnu omar nettali ko mu ne kenn ci ñun nekkoon na ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam bu géntee ab gént da koy nettali yonent bi yonent bi daal di ko koy leeralal moom ibnu omar mu ne fatamannaytu an ara ruya fa aqassaha ala nabi mbir mi dem na ba neex ma gaa ñi ni ñuy géntee di ko wax yonent bi yonent bi di leen ko leeralal mu ne ma bëgg ci sama bopp man tamit yal na ma yàlla dimbali ba ma gént ab gént ma wax ko yonent bi pour mu leeralal ma ko mu ne ma daal di gént waaye waxuma ko yonent bi de dama kaa nettali soxna Hafsa ba ma ko nettalee yaay Hafsa radiyallahu anha mu ne mu daal di koy nettali yonent bi ba mu ko waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lii de ibnu omar moo ko gént yonent bi ne ko ni'ma rajulu abdullahi law kaana yaqumu min alleyli ay waay waajee ka baax waajee ka baax wala waaji xawoon naa baax bu doon dana julli guddi waa ji xawoon na nekk ku baax kan abdallah ibnu omar ba ko yonent bi nettee ne ko abdallah hafsa ne ko abdallah ibnu omar rek yonent bi ne xawoon naa baax bu fekkonte ne dana julli guddi benn baat kalimatun wahid min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam atadruna kayfa taamala maaha ibnu omar ba yaay aysa hafsa delloo si ci moom di ko nettali ne ko yonent bi nee na daal yow xawoon ngaa baax boo doon julli guddi allahu akbar doon nga nekk nit ku baax yow abdallah ibn omar boo doon julli guddi xool leen abdallah ibn omar ni mu toll baat boobu mu dégg benn baat boobu génn ci yonent bi changé na dund abdallah ibn omar fa kaana laa yanaamu min al leyli illa qalilan ba mu déggee baat bi rek baat bi jeexital ci moom keroog la bàyyi nelaw guddi tuuti la ciy nelaw ndax lan baat bi mu dégg ci yonent bi kon baat ba jeexital na ci moom ñun mbokk yi fa kam samina mawiza la aqul an qiyaami leyl wa innama an muhafaza an sala ala salat fi waqtiha aw fi jamaa almuslimin lakin alxaal hiya alxaal mbokk yi nun ñëpp nanu ànd càmbaraat sunu bopp abdallah ibnu umar benn baat la dégg ci yonent bi baat boobu moo changé dundam waa jii day doon na nekk ku baax bu doon dana taxaw guddi di julli ba mu déggee baat bi guddi gi yépp dootu ko nelaw lu dul lu tuuti ñun ñaata waaraate lañ dégg ñaata conférence lañ dem ñaata soññkat la ñu déglu mu ñuy soññ ci jëf yu baax naa fi la guddi misaal wala ku ñuy soññ pour ñu wattu julli yi juróom ca waxtu wa wala buñ koy def ñu dem defi ko ca mbooloo ca jàkka ya waaye mbokk yi ndax changé nañu ba tey ci ñun ñi baax ñi ajjuma ba ajjuma la ñuy dem jumaa ñenn ñi dañuy biddanti fajar asalaatu xayru minan nawmi mu ngi fekk ñenn ñi ca soirée ya ñenn ña ca dancine ya ñenn ña ca baar ya ñenn ña ñenn ña ñenn ña ba léegi mbokk yi amul changement ci ñun noonu la ñuy tardelee julli am na ci ñun ñoo xam ne duñu julli man laa yusallil fajar illa baada suruqi sams am na ci ñun ñoo xam ne ndeysaan dañu yaakaar ne ñoom ñoo moom waxtu wi fajar midi lañ koy julli midi mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala wa taamalu ibadallah ma rawahu albuxaari an abi masud al ansaari radiallahu anhu qaal كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحمل ñun ñëpp mbokk yi nañu ànd déglu hadis bi ca Bukhari ak Muslim Abi Mas'ud di ñu ko nettali ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay kàddoom doon jeexitali ca sahaaba yi nii mu jeexitale ci ibnu mas'ud ba mu bàyyi nelaw guddi nii la jeexitalee ci abi mas'ud nee nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu taxawoon di ñu soññ ci saraxe ñuy génn ci sunu poos di joxe nee na yonent bi bu waxee ba pare fekk kenn ci ñun amul ci poosam lu mu joxe nu ñuy def ndax dégg gi ñu dégg waxu yonent bi dañuy dem marché liggéey di yenu loolu ñu naan baara ñindewu yenu ay bagage wala bale wala raxas ba ñu fay ñu suñ ñu fayee ndax bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu ñu soññ ci saraxe ñu daal di génn loolu ñu ñuy fay ñu daal di ciy saraxe yonent bi moo leen soññ ne leen dee leen saraxe amuñu luñ joxe ñu dem liggéey yi pour ñu fay leen ñu saraxe pour lan déggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ci yàlla ñu xool keneen ci sahaaba yi ku tudd abu hurayra radiallahu anhu mu ne awsaani xalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut sawm salasati ayam min kulli shahr wa salatu duha wa nawm ala al witr abu hurayra nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ma dénk gis ngeen kàddu yonent bi ni muy jeexitale ci ñoom ku dégg rek jëf yonent bee ma dégg moo ma dénk man Abu Hurayra nee na sama xarit bi moo ma dénk ci ñetti mbir du ma leen bàyyi lu dul ma dee dee rek mooy tax du ma ko def lu tax parce que sama xarit bi moo ma ko dénk kan mooy xaritam Muhammad awsaani xalili mu ne loolu duma ko bàyyi lu dul ma faatu lan la ko yonent bi dénk woor ñetti fan sawmu salaasa ayaam min kulli shahr weer wu nekk ma woor ñetti fan ma woor le 13 le 14 le 15 ci calendrier musulman wa salaatu duha ma julli yoor yoor ak lan la ma dénk balaa may tëdd ma witr balaa may tëdd ma julli witr xoolal kii ba ko yonent bi dénkee lii lan la wax duma ko bàyyi lu dul ma dee ñun ñaata lañ dégg lii waxuma la witr waaye am na ci ñoo xam ne ñun duñ ju liggéey waxuma la witr koor moom da ngay dégg ku ne man du ma bëre mbapat gisoon naa imaam bu naan man du ma bëre mbapat lan mooy du ma bëre mbapat mooy koor ba koor laay woor yeneen woor yépp ñeme lu ñeme xiif kese la allahu akbar waaw yow lay woor nga ne ah yonent bi moo ne nañu woor weer wu nekk ñetti fan wala tey la lundi wala tey la jeudi waa ji ne la ñeme xiif rek yéen da ngeen a ñeme xiif xoolal abu hurayra moom ba mu déggee lii mu ne duma ko bàyyi lu dul ma dee gis ngeen kàddu googu ni mu jeexitale ci moom ixwatal iman waxuma la woor ñetti fan weer wu nekk waxuma la woor lundi wala jeudi waxuma la woor yow mu arafa wala asura wala sitta sawaal am na ci ñun ñoo xam ne yooyu ay caaxaan lañ ko def yooyu moom kenn du seen yoon nekk ci ñoom daal koor ba koor boo waxee ñu ne du ma bëre mbapat ibadallah ma rawahu abu daawud an ummu salama pour wan leen ba tey jeexital gi kàddu yonent bi daan jeexital ci sahaaba yi wala alquran ni muy jeexitali ci ñoom bu ñu déggee benn baat keroog ba aaya ba wàccee lamma nazalat yudniina alayhinna min jalabibihinna nañu muuru jigéen ñi nañu muuru keroog ba aaya muuraay wàccee yaay Aysa nee na yal na yàlla yërëm jigéeni ansaar keroog ba aaya wàccee alquran ne jigéen ñi dañoo war a muuru mu ne jigéen ñi madina dañoo muuru ba mel ne ay baaxoñ foo gis dëkk bi mu ñuul jigéen ñi mel ne ay baaxoñ ña demoon marché dañoo taxaw ne ñun duñu yenu suñuy laket wala suñuy pañe lu dul dañoo def li yàlla wax ba pare ña demoon ca teen ya rooti dañoo taxaw yónnee seeni kër ne nañ leen indil ay muuraay ñu teg seeni bopp am na ci jigéen joo xam ne doom ji da ko ne yaay nañ dem ba kër ga nga muuru mu ne ko sama tànk bi du jéggi ndeyjoor bi du fekki càmmoñ bi lu dul damaa def li yàlla wax ba pare fa mu taxaw la taxaw ñu yónnee ko indil ko muuraay ana jigéeni Sénégal ana borom kër yi ana ñuy julli si jumaa bàyyi seeni njaboot ñu def yaramu neen boppi neen ana ñu bu julli jotee nga ñëw julli bàyyi sa kër mu ngi tàkk ndax yàlla waxul woon qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen bopp safara musal seen njaboot qu anfusakum wa ahlikum naaran ba aaya ba wàccee sahaaba bi dafa jooy gaa yi ne ko looy jooy mu bañ noppi waxu leen ko gaa yi dem boole koog yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam woo ko ne ko dégg naa yaa ngi jooy démb ba léegi mu ne ko waaw lu ko waral mu ne ko ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli man dey sama bopp moo ma të munu maa fexe ba dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw kon loolu mooy man du ma dugg yonent bu ne ko wa hasbuka an taamurahum bima taamuru bihi nafsak doy na ci yow ci njaboot googu lu baax li nga bëgg lu baax li ngay def nga sant ko njaboot gi booy julli yee leen àndal ak ñoom ca jàkka ja ngeen julli booy def lu baax lu ne yow kenn bul ko def waaye àndal ak sa njaboot di ko def loolu mooy liñ ñu sant waaye tey ku xool sunuy mbedd xool sunuy biiri kër xool sunu dund biir ak biti xool leen sunuy jigéen nu ñu mel tey ku wàcc Sénégal nga ni Sénégal dëkku islam la ñaari seconde ñu weddi la benn borom kër benn borom kër bu doomam dem France jàngi gis fa ab xale bu jigéen bëgg koo takk yónnee ne ko bàyyi dama gis ab xale tubaab bu ma bëgg a takk mu ne ko waxuma la tubaab waaye ku xees sax boo ko takkee ma bàyyi la àdduna ak àllaaxira ku xees waxuma la ak nag nga naan ma tubaab xale bi toogaat ay fan jokkoowaat ak baay ji ne ko baay li ma la waxoon ca laa nekk de mu ne ko xanaa déggoo li ma la wax ku xees rek laa la wax ku xees su fekkee ne man dégg nga sama ndigal Sénégal gi ngay amee soxna mu toogaat ñetteelu weer bi mu woowaat baay ji sonn ci wootee daal di yónni benn nijaayam bu nekk Italie ne ko demal France nga xoolal ma diw nee na dafa gis foofu benn xale bu jigéen bu ko takk nga xoolal ma xale bu jigéen bi nijaay ji jóge Italie ñëw France gis xale bu jigéen bi woo papa ji ne ko ak ki ma fi gis de baax na ñu takk sëy bi trois mois ñu ànd ñoom ñaar di ñëw Sénégal waajaa nga doon gëmloo tubaab ba Sénégal dëkku l'islam la ñun ñëpp ay juddit lañ quatre-vingt-quinze pour cent musulmans ndaw si wàcc aéroport commencé weddi waa ji yow di yaa ne ma woon Sénégal dëkku lislaam la xoolal lii ñu jaar ci ah, taxi jaar ci aéroport bi di ñëw géejawaay gii fii fii fii fii fii ndaw si bëgg a ñibbi France bëgg a ñibbi ne ko fii daal yéen a ñun ak yéen benn leen benn ngeen yow nga ni ma woon quatre-vingt-quinze pour cent musulman ana loolu ñu ñëw ci kër gi paa bi doon wax bul takk tubaab ndaw si ne yow yow yaa ne ma woon yéen ay jullit ngeen seen kër waa ji ne ko waaw mu ne ko yow sa papa du dem jàkk bi ma fi ñëw ba léegi gisuma ko mu dem jàkk fii lay lal si yaadaam di julli te jàkka jaa ngi nii troisième kër mooy seen kër ci jàkka ji fu paa bi mujj eh sa kii yaa ngi moom ñibbi leen xeju leen fii yaag sa kii ñibbi leen xeju leen fii lu tax parce que ndaw sa dafa dund diine waaw ñun li ñuy wax fii moo fi amut 95 pour cent musulman ana jigéen ñi loolu fan la feeñ keroog ba sàngara wàccee benn aaya yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu innama alxamr walmaysir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytan Omar nee na keroog mbeddi Médine dañoo tuur sàngara si ndaa yëpp la ñu toj dimsaan yeeg gutt yeeg siwa yeeg paan yëpp la ñu falaxe mu tuuru Omar ne allahumma ntahayna minhu ñun pare nañ ci ñooñu ay jullit lañu woon ñun ay jullit lañ ndax nax nu faal faal nax nu antahayna minhu ndax ñun pare nañ ci ñun ba léegi ñu ngi naan ñun ba léegi noo ngi naan yamuñ ci naan waaye léegi dañ ko def ay kopp ak ay mbuus yóbbu ko ci école yi di ko jaay xale yi ni nga nit di maree jënd mbuusum ndox juróom noonu la nit di jëndee tey mbuusub sàngara cent franc ñu tuddee ko salañ salañ mu ngi ci école yi mu ngi ci mbedd yi baar yi léegi sax waxutuma baar mais ay nit ñoo ñëw ubbi ci koñ yi ay kii yu ndaw di ci def sàngara nit ñi ñëw di naan ay kopp léegi champagne bi dafa cher ba kenn mënatul jënd butéel bi normal da ngay ñëw rek ñu jaay la kopp comme ni ñu lay jaayee kopp café waaw da ngay ñëw rek defal ma kopp ñu jaay la kopp 500 francs nga dem naan te ñun nee nañ ay jullit lañ ñee ba ñu déggee loolu dañu ne allahumma ntahayna minhu ñun pare nañu ci xanaa ñun ana 95 pour cent yooyu kon mbokk yi ñii nii la kaddu yi doon jeexitalee ci ñoom nii lañ doon déggee waxu yàlla muy ñuy bàyyi keroog ba yonent bi fekkee waaj a takk lam mu jël lam bi moom yonent bi ak loxoom xëcc ko ba loxo waaji deretal mu sànni lam bi ne ko walaw mitta wa haada fi yadika maflahta abadan boo faatu woon lem lam bi nekk ci sa loxo doo dugg aljanna yonent bi romb waaji gaa yi ne ko yonent bi dem na jëlal salam mu ne yonent bi du tekkiwaat safara sama loxo ma koy takkaat yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat ñun ñaata sénégalais ñoo julli si tey jumaa takk ay lam soo leen ne góor du takk lam ñu ne la kii garab la dafa am lu muy faj kii sama benn paa moo ma ko jox kii sama benn mère moo ma ko jox kii gàllaaj la booboo ci gën a yées nag kii gàllaaj la lam yoo xam ne ay lamu bokkaale nga gis kilifa yu mag ci ay kilifa diine takk ay lam waaja moom ba ko yonent ne boo deewee lii nekk sa loxo xalu safara lay nekk bu lay lakk yonent bi wan waa ji ginnaaw mu ne ko ñu ne ko jëlal salam mu ne leen yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat gis ngeen ñooñu ni alquran doon jeexitalee ci ñoom ni xutba yi doon jeexitalee ci ñoom ni waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jeexitale moom jeexitale ci ñoom mbokk yi ci yàlla omar ibnul xataab a ngi nii moo dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan inna allaha yanhaakum an an tahlifu bi abaikum fa qaala umar wallahi ma halaftu baadaha munzu samitu nabi sallallahu alayhi wa sallam zakiran Omar moo dégg yonent bi naan bàyyi leen giñ ci seeni baay waay bàyyi leen wax sama geñoog baay sama geñoog baay waaw sama bakkanu maam sama bakkanu baay sama bakkanu doom sama sama sama sama sama sama keroog ba yonent bi taxawee na bàyyi leen loolu Omar nee na keroog laa ko teg ci suuf gis ngeen ni mu jeexitale ci ñoom ñun waxuma la léegi ba léegi suñuy bakkanu baay waaye dañuy giñ ci ay kilifa di giñ ci suñuy sëriñ di giñ di giñ te yonent bi waxoon na Omar man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw li yasmut kuy giñ na giñ ci yàlla te noppi ñun ba léegi ñoo ngi giñ di waat ci ay kilifa barke diw barke diw léeg-léeg sax nit taxaw ne la man de diw ku ma gëñal ci moom rek ma xam ne dëgg la au lieu mu ne yàlla danaan diw laa wax diw ku ma giñal ci moom rek ma xam ne dëgg la al abadal al arba ñeenti abdallah yi ñu ne nga giñ ci yàlla nga fen moo gën nga giñ ci nit wax dëgg nga giñ ci nit ci yàlla nga fen nga ni billaahi wallaahi taalaahi fekk ay fen la moo gën nga ni barke diw fekk dëgg la lu tax ndax boo giñee ci yàlla nga fen da ngaa fen fen yàlla mën na ko baale inna allaha la yushrak la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasa kon fen ci loolu la dugg waaye bokkaale ki giñ ci nit wax dëgg kooku dafa bokkaale te bokkaale yàlla du ko baale innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu annar wa ma lilzalimina min ansar aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله خطبه yi nii la daan jeexitalee ci sahabatul kiram aaya yi noonu la daan jeexitalee nañu jàng qissa abdullahi ibnu mubarak wala ñu jàng qissa malik ibnu dinar wala ñu jàng qissa abdallahi ibnu Xudaafa danañ gis ñi ay nit lañ yoo xam ne ay aaya alquran ñoo jubanti seen dund xoola tufaylu ibnu amr nee na jógee naa mag sunu dëkk daws ma jëm makkatal mukarrama ci jamono jooju moom la yàlla yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi di woote biir makka waaye lan la fekk mooy tey li xew fatt information yi ni ñu diaboliser l'islam ci rajo yi ci télé yi ci journaux yi ci biir dëkk bi ni ñu diaboliser l'islam ba kenn ci ñun tey nanguwul nekk jullit gis ngeen barki démb sunu ministre de la justice fële la dem ca yahud ya sol seeni mbax ne taxaw ci seeni miir yooyu di julli seeni julli te soo ko waxee mu ne la ab jullit laa tey nga dem di nuru nuru lu ay yéeféer moo la gën moom nga gën a tànn ci nekk jullit yonent bi nee na man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum ku bëril mbooloo ay nit rek yaa ngi ñoom a yem yaa ngi ñoom yéen a yem Abdallah ibnu Xuzaafa nee na wala tufayl ibnu amr moo ne damaa jóge sunu dëkk daws ma xuus montagne yi ma ñëw makka ma fekk information ñu ngi koy tas mooy moytu leen kii di woote doomu abdul muttalib bii dane yonent la moytandiku leen ko mu ne ku dugg makka rek fekk nga ci frontière bi teg nañ fa ay nit ne la foo jëm boo ne ci kaaba ga ñu ne la am na xale bu fa nekk bu tudd muhammad boo demee nga moytu ko tàqale na waa màkk yëpp jëkkër ak jabar baay ak doom doom ak ndey nit ak mbokkam tasaare na ñëpp tàqale na leen Tufayli ibnu Amr nee na ñu tiital ma tiital ma tiital ma tiital ma ba bi may dem ci kaaba gi damaa jël ay witteeñ taxañ ci samay nopp pour bu ma demee bu ma ko déggee muy wax bu ma ko déglu waaye xam ngeen ne mbokk yi witteen tuuti na ci téye kàddu yàlla witteen tuuti na ci mu neex yàlla yonent bi toog ci kaaba gi di jàng alquran tufay lu ñëw di wër kaaba gi léeg-léeg borom bi tabaraka wa taala jël aaya yi ci gémmiñu yonent bi laxas ko ci ngelaw li daal di koy fëgg ci nopp tufaylu mu romb witteen yi romb tempan bi ne saraax ci biir xol bi mu jékki-jékki rek xam nga léeg-léeg am na nit ñoo xam ne bu ñu bëggul dégg waaraate bu ñu rombee benn waaye di wax lu baax dañuy dañuy waaxu dem ñenn ñi dañuy waaxu ba ci yàgg di réeku su yàggee ñu taxaw ñenn ñi dañuy def ba ci yàgg ñu daal di dëpp loolu moo dal tufayl alxuraan bi bu mu duggee ci xol bi dafa ñëw ne ko yaa rasulallah samitu maqaalata qawmika fiik dégg naa say mbokk li ñu wax ci yow nee nañ ku la déglu rek nga tàqalikook ay mbokkam waaye nag man mii man tufayl xam naa waxi njabar xam naa waxi buxaaba xam naa waxi caaxaankat su fekkee ne lii nga indi dëgg la waxal ma dégg yonent bi jàngal ko saar yu gàtt yi mu daal di yuuxu moom tufayl benn baat saar yu gàtt yi la ko yonent bi jàngal saar yu ndaw yi la ko yonent bi jàng jàngal tufaylu xam ne lii du waxu nit lii waxu yàlla la tufaylu daal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ya rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim ba mu tàllalee loxoom ndeysaan ba ne yonent bi tàllalal ma jaayanteeg yow daal di tudd baatu seede yi shahadatu an la ilaha illallah boo xam ne tey ñun ñoo ngi koy tudd waaye xamuñu baat yi li muy tekki xamuñu baat yi lu mu wund xamuñu baat yi lu muy dox lii moo ñu indil problème jàpp nañ ne da nga naan laa ilaha illallah rek mu daal di jeex allahu akbar fekk laa ilaha illallah dafa am ay chart laha surut laa ilaha illallah miftah dafa am ay sart juróom-ñaari sart laa ilaha illallah su fekkee dëppawul ak yow sa laa ilaha illallah baaxul juróom-ñaar tufayl daa di yuuxu ne yonent bi waa daws fa ma jóge ña ngay naan sàngara ña ngay njaaloo ña ngay ña ngay yonent yónni ma ma dem jëli leen indi leen ci lislaam yonent bi daal di koy yónni mu dem xoolal saar yu ndaw yi la ko yonent bi jàngal tufaylu saar yi daal di jeexital ci moom jëlal malik ibnu dinar ab takk der la woon naan katub sàngara guddi gu nekk la muy naan kenn attanu ko yàlla may ko doom bu jigéen mu bëgg doom ji ci xol bi benn doom ni muy naane dafa ëpp benn bis mu wàcc naan ba xamul fu muy taxaw mu jël doom ji daf ko bëgg bu dee tëll rek doom ji day daw song ko Malik ibnu Dinaar ne tëll rek doom ji song ko ndeysaan mu jël ko taf ko ci dënn bi sànni ko kapte ko taf ko ci dënn bi sànni ko kapte ko taf ko ci dënn bi mu sànni ko rek ne da koy kapte rek doom ji daal di mbasu ne rëll ci dër bi daal di dee Malik xamatul fu mu nekk ndax doom ji dee na te da kaa bëggoon ci xol bi dafa mandi woon waaye mu dem yokk mandite gi dafa mandi woon ba doom ji dee xamatul lu muy def mu dem la mu naanoon benn mu double ko deux ñu daal di koy watat xamuñu lu ñuy def ak moom ñu sànni ko ci biir néeg mu tëdd guddi rek mu gént yowmal qiyaam mu gis benn jaan ju rëy jaan ji di ko dàq moom Malik mu daw fu mu dugg jaan ji topp ko fu mu daw dugg jaan ji topp ko jaan ji rëy na rëy goo xam ne bu ko xoolee xamul fu mu jëm bopp bi bu ko xoolee day mel ne bopp bi day laal asamaan ndax ni mu rëyee mu gis benn góor gu màgget ci digg àll bi mu daw ndeysaan laxasu góor gi ci ginnaaw ne ko góor gi dimbali ma ngir yàlla jaan ji de moom góor gi ne ko aw ma doole aw ma doole mënuma laa làq te bu ñu fi fekkee ñun ñaar dañuy alak mu daw mu ne ko jëmal boor bii dégg naa fa ay riir xëy na dañ fa fekk ñu la dimbali mu daw ba yegg si ndeke jahannama la mu dëpp mu jaar beneen yoon mu seen ay mbir mu daw song loolu ba mu yegsee mu gis ñuy ubbi ay rido di ubbi ay rideau mu song place ba jaan-jaan ko topp ñuy ubbi rideau yi ba dernier rideau bi rek biñ ne France rideau bi rek muy doomam bu jigéen bi doom ji ne ko bàyyi alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubahum li zikrillah qulubuhum li zikrillah bàyyi yàlla nee na ndax jotagul ba tey li mu wàcce seeni xol yi di ci jàq di ci toj alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dikri llah wa ma nazala min alhaq wala yakunu kalladina utul kitab min qablu fatala alayhim alamad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun mu daal di jël doom ji taf ko ci dënn bi ne ko doom fii fan la mu ne ko fii aljanna la waa xale yi nga fi nekkal nag mu ne ko ñii ñooy ñi faatu ci doomu jullit yi nga xam ne balaa ñuy mesure waaw yow foo jànge alxuraan mu ne ko fii dañ ñuy jàngal alxuraan bàyyi yàlla nee na xanaa sa xol bi ba léegi du toj du jàq ci li mu indi ndeysaan moom Malik ibnu Dinar mu ne waaw doom waaw jaan ji topp ma lan la mu ne ko sa jëf ju bon sa jëf yi ñoo bon ñoo bëri mu ne ko waaw góor gu màgget gi ma gis nag mu ne ko sa jëf ju baax la dafa tuuti amul doole jëf ju bon ji ëpp mu ne ko waaw montagne yee la nag mu ne ko jahannama la fii nag mu ne ko aljanna la Malik ibnu Dinar daal di yeewu ci manditi gi mu dégg ñuy nodd asalaatu xayru min an nawmi te musta dem jàkk musul julli mu daal di jàpp bis boobu jëm jàkk bi mu demee mu dugg ci jàkk ji julli ñaar rakk toog ñu li xam imaam bi jël aaya fatiha jàng ba pare daal di jël alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dikrillahi wa ma nazala min alhaq aaya bi ñu ko jàngaloon fële moom la ko imaam bi jàngal ci fajar mu yuuxu ci jàkka ji ba ñëpp tiit jooy julli gi ba mu jeex benn aaya alxuraan la dégg daal di jub ñun ñaata aaya lañ dégg ñaata ci ñun ñooy ay hafiz ñaata ci ñun ñoo mokkal ñoo lan la changé suñu dund ndax ay ay looloo doon def da doon changé ay dund nit ay ay da doon changé ay dund nit daf leen fekkoon ñuy naan sàngara ay tere leen ko ñu bàyyi mu fekk leen ñuy njaaloo mu tere leen ñu bàyyi mu fekk leen ñuy lekk riba mu tere leen ñu bàyyi mu fekk leen mu fekk leen mu fekk leen mu fekk leen lépp lu aaya wax sahaaba yi teg ko ci suuf ñun aaya yaa ngi nii hadis yaa ngi nii xutba yaa ngi nii lan la jëriñ ci ñun 95 pour cent musulman tey boo génnee ci mbedd yi sa yaram day daw lépp am na fi ndam ba mu des lislaam lépp lépp am na fi ba mu des lislaam moo fi gën a tumaranke li waa ji wax ne ku dee ku ne am nga ku la jooy ba mu des diine yonent yàlla muhammad fii ci Sénégal amul ku ko jooy amul ci télé yi amul ci rajo yi amul amul amul yenn saa yi sax nga gis ay jàkka yoo xamante ne diine amu fa fu ñu jëm nii lañ nar a dunde ba dee dajeeg suñu borom subhanahu wa taala xutba yi amul lenn lu muy def ci ñun te gis ngeen saxaaba yi ay baat la yonent bi wax ñoom ñëpp ñuy changé ay baat ay baat waaw ndaw sa ba muy bëgg a meesu di yokk kawaram daa di gàddu doomam bu ñu waroon maye ñëw na yonent bi alayhi salaatu wasalaam kii sama doom la maam wataan moo wat bopp bi waaye dañ koy maye ndax mën naa ko yokkal kawar yonent bi ne ko laana allahu alwasila wal mustawsala yal na yàlla rëbb ki yokk ak ki ko yokkal ñun ay salon lañ ci yor te yonent bi rëbb na ki ko def ak ki ko koy defal ñun ñu ubbi ci ay salon sàngara ñu tere ko ñun ñu ubbi ci ay ay baar njaaloo ñu tere ko ñun ñu ubbi ci ay casino ubbi ci ay hôtel ubbi ci ay ñaata ay kabaan ñaata ah ay auberge da ngay dégg waaja ak femme bi waaja ci auberge bala dee allahu akbar te ñun ñu ne ay jullit lañ te ñoo xoolaat suñu bopp mu sibbe fulbe caggal yettude allah e julde nelaaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hutba men hannde wonno saha baɓɓe holno alquran gaynuno e maɓɓe holno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam daratono hutba juma haalana ɓe ko haali ko naatayi ɓerɗe maɓɓe ɓerɗe ɗe nguura ɗum ɓanndu ndu wuura ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam abdoulahi ibnu omar wi nelaaɗo so juulino subaka haa gayni o yeccoto sahabaɓe ɓe o wi holay mon koyɗuɗo kala koyɗuɗo haalanamo ko hoyɗi ko o firtana ɗum abdoulahi ibnu umar yi ɗum ɗum welimo omo duwo allah yo allah wallumo hawa hoyɗa ñalawma gooto o hoyɗi kono haalnani nelaaɗo haalani nene hafsa radiallahu anha wa ardaha o haalani yimma men hafsa nena hafsa haalani nelaaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi gorko moƴƴo nan ɗon so tawino omo juula jamma gorko moƴƴo nan ɗon so tawino omo juula jamma nde nene hafsa haalani ɗum abdallah ibnu omar o wimo an nde nelaɗo wi saɗa juulanno jamma ko neɗɗo moƴƴo gonta allahu akbar ndeɗon dande tagi abdoulah ibnu omar woppi ɗanade jamma dande wotere o nani o woppi ɗanade jamma enen no foti ayeji nanɗen ina ina haalna en kon fotɓe darade jamma eɗen juula kanu qalilan min alleyli ma yahjaun alladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama ya ayuha almudammil qumi lleyla illa qalila no foti no foti ayeji nanɗen ablah ibnu umar nelaɗo wi somo juulanno jamma ko gorko moƴƴo opiɗanade jamma allahu akbar sahabaɓe hewɓe omar ibnul khattab wi nden nan mi nelaɗo wi goppe wondirde baabiraɓe moɗon o wi ha maymi mi waɗan ɗum enen hande ko baabiraɓe ko neneraɓe ko taniraɓe ko ɓesgu gondirtani mi wondiri wonki nenam mi wondiri wonki babam mi wondiri wonki ɓiɓɓam mi wondiri mi wondiri nelaɗo koko haɗi ɗum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut gonɗowo yo wone allah o daƴƴa yew omar nde nani ɗum o wi ko nden gaynume hen abou hurayra wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sehilamo o resdi kam gueɗe tati yomi hoor lewru foof balɗe tati so dañi sappo e tati so dañi sappo e nayyi so dañi sappo e joyyi e calendrier islam o jamma yomi hade mi lelade yomi waɗ witre hade mi welalade yomi waɗ witram kono o resdi kam fajiri foof duha nangue so ummima yomi wat ɗon naafila darɗe ɗiɗi darɗe nayyi kala ko mbawmi wadde abou hourayra wi kala ñalawma nanmi ɗumo mi woppan ɗum ha maymi mbokk yi ci yàlla comme nu ngeen ko baaxoo xam vendredi bi passé am na mbokk yi fi ñëwoon ñu laajal leen ndimbal dañ doon wax ne vendredi bu nekk dañuy tëbal waaye léeg-léeg danañ la indil kaawu ay jullit yoo xam ne yow moomoo vendredi yi ba nga naan leen ba vendredi bii di ñëw wala ñooñu est ce que seeni feebar mën ñaa xaar vendredi yi di ñëw kon kay ñun ñuy joxe ngir yàlla ñun ñooy bañ a tàyyi bañ a sonn rek xam ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lu ñu mën a joxe rek sunu borom subhanahu wa taala lañ ko jox gis ngeen léegi léegi ñoo ngi wax ci biir xutba bi yonent bi alayhi salaam bu soññoon saaba yi ci sarax saaba yi amuñu ñu ne dañuy dem liggéeyi pour ñu fay leen pour ñu mën a sarax ndax xam sarax tiyaaba yi ci nekk kon suñu paree am na fi mbokk yu bëree bëri ñi ay loas ñi ay analyse ñi ñi ñi ñi këyit yaa ngi ni ma tegale ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala lépp lu ñuy joxe mu nangul ñu ko allahuma igfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asratna wa ma anta alam bihi minna anta almuqaddim wa anta almuakhir la ilaha illa ant اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقامة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله